dal leen jàmm seen ànd seen seen YouTube tas info bu dee gan nga aboneel lu jëm ci ki nga xamante ne moo di Birima Ndiaye ak ki nga xamante ne moo di Seydou Gueye ñoom ñoo ñi nga xam ne ay kàngam lañ yoo xamante ne ñu ngi fii ci parti bi nga xamante ne moo di APR te gën caa nekk moo di ni kii di Birima moom mi nga xamante ne ay jamono mi ngi woon ngi bokk ci ñi nga xamante ne ñu ngi jàppale kii di le président Macky Sall ñoom ñooñee am na ay vidéo yoo xamante ne génn na yoo xam ne ñoom lañ xamle moo di ne kii di président de la république mënta tegaat li nga xamante ne moo di troisième mandat maanaam troisième candidature bi nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy laam-laamee ñoom ñooñee ku ci nekk jot na cee wax ci confirmer li nga xamante ne moom la président de la république daal di woon bind ci livre am bi nga xamante ne ca la bindoon mm, ba booba ci la doon xamle ci livre boobu ci ni sénégalais yi ma nañ ma kóolute ci jox ma li nga xamante ne moo di ñaareel ak dernier mandat bi nga xamante ni moom bu ma ko jëlee mu wasaa maanaam daal boom bu jëlee mandat bu tëni gi wasaa loolee nag ñu bëree bëri mooy ñi nga xamante ni ñu ko digéréwul te bokk ci ñi nga xamante ñoo di APR waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kàngaam yooyu gisee na ay vidéo yoo xamante ni xamle nan ci lu mel noonu ndax ñoom dañoo bëgg a delluwaat ci kàddu yooyu nga xamante ni moom la nekkoon ndax dañ ci bëgg a dellu ginnaaw loolee nag la ci kanam raw li gët ci ni nga xamante ni noonu la gisee ay militant APR yu bëri bëri ñuy confirmer li nga xam ne moo di candidature kii di président de la république monsieur Macky Sall.